télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama laanu mi dundee. teew fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a wax sa jaar jaar. danga ko dara raw. Mm. visibilité dinga ko am promotion dinga am. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. bokk yi ci neuvième édition Saladel 2023 ba tey ñu ngi fii ci box numéro 157 ñoo nag fekk file les deux frères de la bergerie Serigne Saliou vraiment Bapti lañ koy wax ak Baye Niass ñu nekk deux jeunes yoo xamante ne ñu ngi ci élevage di ci liggéey liggéey bu extraordinaire lu koy wane mooy exposition bu rafet bi nga xamante ne moom la ñu def vraiment box boo xamante ne dañ koo taaral taaralee ko lan ay sujets yoo xamante ne vraiment ils sont tout simplement phénoménal ngeen nekk nag ay phénomène ci biir élevage nekk ci ay ndaw mais macha allah Bapti liggéey bi rafet na Baye Niass maa ngi lay nuyu dama leen koy séddale aywa. Mhm. maa lay jaar suñu mag suñu xarit. waaw di kontaan trop si dalal bi ñu dalal. Mhm. vraiment mënoon nga dalal ñu nekk. Mhm. xam nga nga ñëw vraiment amuñu sa fay vraiment di la remercier bu la bu la neexoon dem si ñeneen dem dalal leen nga ñëw ñun en tant que jeune. dalal ñu. vraiment amul leneen lu ñu la def lu di la remercier quoi. Mm-hmm. aywa Baye ma nuyu la ziar la bu baax yow it mu nuyu la. waaw waaw ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee. Mm-hmm. waa waa euh, Ladoum TV. di leen jox seen wàccuwaay bu baax. Mm-hmm. di di xam di am contentement bu baax. ci li ngeen ñëw di leen maam di ñuy di ñu maam euh, di leen jël euh, émission ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax. aywa Bapti vraiment ngeen ñëw nekk ay ndaw nekk ci élevage. def ci ay gëstu yu yaatu tey ku xool li nga xamante ni moom ngeen fi exposé dinañ xam ni carrément am ngeen expérience ci élevage ndax xam ngeen fi ngeen di teg seen tànk. Mhm. ba tax ma bëggoon nga wax ma bàyyi ñas femelle bi mu yor ni mooy kan. bon kii mooy Awa Diop. Awa Diop moom daanaka doom la si xarañ xarañ di di doomu préfet. Mhm. xarañ yaay ji di sëtu Abdou Fall. Mhm. yaay ji di ak moo njëkkoon def fi 103 espoir. ok waaw moom euh, yaay ji dañ jël benn doomu nation tekk si magistrat. Mhm. mu jur yaay ji. loolu waaw loolu moom looloo composé quoi moom si deuxième portée ok kon nga gis ni kon moom am na booy séeréer am na magistra am na Saalum Saalum. waaw daanaka li ko composé moom feeñ na si ay production crème élevage Sénégal yëpp mu ngi ci moom production am na fi benn doom bu fi nekk. waaw indi nañ benn doom. nañoo ñu xool kon su ma gisee ki ngeen yëkka nii di wane ni moom mooy production Miss Rio mi nga xamante ni. Mhm. moom mooy toj Facebook bi ci ay eh, publication yu rafet. Mhm. Miss Rio mi nga xamante ni tey boo dee xool. Mhm. dafa def attraction foire bi daa mel ni moom mënee moo ko jur. waaw kii mooy Miss Rio. moom yaay mu nekk ne moom lañ doon moom lañ doon présenté nii tout mhm. waaw moom mu ngi si dix mois di ab añel mhm. waaw moom di pap moom yaay ji di doomu xarañ mooy ki ñu présenté woon sànq mhm. moom pap ji di euh, benn doomu alxamdu moo jur euh, papam waaw moom euh, papa moom doomu alxamdu boobu lañ tegoon si benn doomu Mansour quoi mu jur papa ji ok ok macha mu toll ci mu ngi si dix mois dix mois macha allah mbokk yi ma bàyyi leen ngeen apprécier ko bu baax a baax gis ni mistre yow vraiment il est tout simplement belle waaye gis naa fa la benn tëng boo xamante ni. Pape yàkkamti naa ko xam na ñëw. aywa kii mooy kan. waaw kii mooy Umu Darmanko moom daanaka fixation la. fixation moom yaay ji doomu Darmanko la papa ji aussi doomu Darmanko la. vraiment moom ñu recruter woon ko ba muy am 2 mois. Mhm. suñu grand ji bi yaatu ko joxoon sa copain. suñu copain. waaw moom moo ñu ko joxoon. vraiment copain bu garaaw. voilà daanaka moom muy suñu grand bu baax. vraiment mu joxee ñu ko ak xéwal. vraiment moom moo ngi si 4 mois et demi léegi nii. Mm-hmm. yaay ji moo jëloon meilleur añel fekkee moom bi passé. Mm-hmm. ok Djiby Yade suñu xarit. merci beaucoup baat boobu élevage moo la ko wax nag yaa ngi koy servir bu baax a baax a baax. Mm-hmm. aywa mu mel ni ba tey am na keneen ku des. femelle bi mooy kan. kii kii mooy Khadija. Khadija waaw moom doom la si Dalinkoor. Dalinkoor moom yaay ji fixé Abdou Fall bi nekkoon si Talla ok ok moom moom ñoo ngi ko jëndee si suñu grand Ibou Khadija. Ibou Khadija moom aussi ñoo ngi koy remercier de passage. Mhm. vraiment mu doonoon suñu grand bu baax. Mhm. waaw moom moo ñu ko joxoon quoi. Mhm. waaye nag ma fekk fi benn jeune mâle boo xamante ni. non doy na waar. na ñëw ñu xool ko. waaw kii mooy Cheikh di ba waaw moom di doom si PDG. Mhm. PDG di doom Picasso. Mhm. waaw moom yaa ji di doom Zebes Zebes di taawu Kaya. Mhm. bi mu amoon ak Saoudien Saoudien doom macha allah Papi waaw moom mu si huit mois. waaw suñu grand di Diba moo ñu joxoon yaayam ñoom euh, doonoon suñu grand bu baax vraiment. yàlla na ko suñu boroom yërëm. loolu moom daanaka bëgguñu sax di wax si moom parce que waa affinité bu ñu amoon ak moom. Mhm. di ko ñaanal. Mhm. doonoon gaañu Baños aussi vraiment doonoon ga voilà nekkoon gaañam. Mhm. waaw mooy noonu moom moo ñu joxoon yaay ji. fekkoon mu tëb woon si mu ñëw wàccee fii Cheikh Diba quoi. moom waaw moom lañ ko tuddee sax daanaka. aywa tout cas moom grand bi yàlla yàlla yërëm ko te xaar ko mais lan moo tax def choix bi ci moom dafa mel ni am na lu leen Cheikh waxoon ci euh, bu ci maal juddoo. waaw waaw. vraiment daanaka moom dafa ñëwoon kër ga. gisoon fa benn femelle bu mu bëggoon. Mhm. waaw nekkoon suñu grand bu baax loola waroon tax ñu joxoon ko femelle bi. Mhm. comprendre nga. ñu ñëw moom aussi dafa yàgg fan fan PDG Bagnès mhm. waaw dafa yàgg fan PDG mu ne mhm. ñu jot a waxtaan xam kii yaay ji fu mu bokk mu ne bon bu su juddee bu ñu si juddalee góor dañ koy téye liggéey si mhm. waaw parce que gëm nañ bu ñu téewoon bu ñu ko téewee liggéey si dina am feneen fu ñu yóbbu quoi dina am fu ñu yóbbu élevage waaw mu nekk lu am solo mais en tout cas liggéey bi rafet na lool képp ku bëgg a ñëw euh, ci bergerie bi adresse bi ak euh, numéro de téléphone bi waaw euh, bergerie mooy nekk fi nii HLM Rufisque juste devant arel bi nii rek si kër HLM yi villa numéro 77 872 23 05. wala 437 86 72. 72 waaw. en tout yow ñoo lay fay vraiment nga nekk suñu grand bu baax. waaw bu la neexoon nag mënoon nga bañ a taxaw fii ñu def émission. Ah, sañu ma loolu waaw mais mooy mooy noonu daal mais ñoo ngi lay remercier vraiment en tout cas c'est partagé mon seen liggéey rafet na trop si càmm gi dégg la ndeysaan mhm. en tout cas merci beaucoup jërëjëf et bonne continuation inchallah merci merci beaucoup apprécié naa li nga xamante ne moom nga def ànd ak sa rakk jiital ko dina tax mu xam yoon bi du xam du am ay njuumte yu bari wala faqasalu bari ndax yaa koy leewu bi mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV